waaw organisation bi mën naa ne euh, su dee lu jëm ci forom bi daanaka lépp yemb na euh, ñi ngi nekk ci dernier réglage yi waaye incha allah euh, feeg tàkkusaan forom bi dana mën a ubbi muy tey ci àllarba ji danañ ko ubbee ak njàngum alxuraanul karim maam jaare yi nga xam ne ñoo jànge woon ci daaree poroxaan ji ba ñibbi seeni kër mokkal alxuraan ñoom la ñuy dajalawaat ab lim ci ñoom ñoom ñooy wàcce ay kaamil ubbee ko liggéey bi. forum bi li nga xam ne mooy yëlla ji. moo di euh, Serigne Ishaqa Bassirou euh, di administrateur général fondation Mame bu Bousso moo ne euh, daayirey maam Diarra yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor daaray maam Diarra ji ci Poroxaan te daara ji fi mu nekk ci dëkk bi ci Poroxaan dafa xaw a sori pénc mi ndax daara noonu la baaxoo faw ñu xaw koo ber foo xam ne danañ fa mën a yar xale yi def ci ñoom alxuraan def ci ñoom jikko yu rafet jikko yi maam Diarra Euh, daara ji kon dafa sori penc mi nga xam ne mbooloo mu bari li leen yëkkati mooy ñëw siyaare soxna jaara delloo ko njukkal ñaan ñaanal ko euh, kon ngir daayirey maam jaara yi ñi ci bokk di màggal si poroxaan mën a gis liggéey bi ñuy def ci yi maam jaara ji man ko man cee teg seen bët ñu leeral leen ko moo tax seen Isaaxa ne màggal gu jotati léegi nañ def forum d'organi forum culturel et d'information boo xam ne danañ ko def fii ci pénc mi mu jàkkaarloo xabru soxna si nga xam ne taalibe bu ñëw la nga daan liggéey di ko defal soxna si ci daaraam jii nga xam ne moo nekk poroxaan nga mën a ñëw ci forom bi loo ci bëgg leerlu ñu leeralal la ko waaye loo bëgg xam ci daara ji ni muy doxe ñu xamal la ko waaye euh, mbiru parenage bi muy ndey daara ak bàyyi daara soo ci bëggee bindu nga mën cee bindu waaye itam euh, exposition nga xam ne yi ñu fiy defit nga mën koo gis loolu xëy na dinañ ci ñëw ci détail muy programme bi ci boppam waaye daal yële ji mooy loolu mooy ñu jegeel nit ñi euh, daara ji daara ji nga xam ne xëy na ñu bari dinañ màggal si ba ñëw duñ fa mën a dem waaye ñu jegeel leen daara ji ba fii ci penc mi ñu def fi loo xam ne ku fi ñëw day mel na yaa ngi ca daara ji da nga xam lépp lu daara ji doxe def nañ fi ay film ak yeneen ak yeneen yoo xam ne danañ ci dellu si. parrainage bi lu am solo la mooy ndeyi daara wala bàyyi daara ni ko waa réew mi xamee euh, ci daara yi alxuraan yi naka loolu dafay am. Euh, dañu gis ne daara ji euh, ñent témèr ak juroom fukk la ko sëñ Moustapha Bassirou tambalé won ci 2005 euh, fi ñu tollu ni di wax ak yeen mi ngi ci juroomi témèr imam maam waye man na naa ne li bindu ci ay maam jaara bëgg dugg ci daara ji te mënaguñoo dugg ndax seigne bi dafa bëgg yar bi ak yor bi mu mat mu ci ayib tax na mënta ubbi rek ñepp duggando nga xam dana mujj soxel yar bi ak yor bi motax ñuy jël lim buñu ñu bo xamne xam ko mëna saytu ci gën jaarafeti anam loolu moo tax nag euh, ñu ne nañ euh, te ñi jàng ci daara ji ma fàttali ne kenn du fay dara seeni wejur duñ fay dara col lekk euh, fu ñuy tëdd njàng mi dara waru leen ci muy seeni wayjur kon nag fondation Maam Diarra moo yor lépp à travers daayira Maam Diarra yi ci yi ci àdduna bi ngir nag ñu mën a am yeneen moyen yoo xam ne dana tax ñu mën a yokk infrastructure yi muy ay jàngukaay muy ay classe muy ay euh, dortoir fu ñuy dëkk euh, mën a recruter ay enseignants mën a recruter ñu leen yor ñu yor xale yi loolu faw ñu indi yeneen moyen euh, yoo xam ne dana tax ñu mën a def loolu investissement yooyu loolu nag moo waral sëñ Isaaxa proposé sëñ Muntaxa mu joxe ci ndigal ñu ubbi buntu képp koo xam ne bëgg ngaa def lu baax su nga nekk ci daayira nga bañ caa nekk nga xam ne lii liggéeyub yàlla la nga mën cee def sa loxo à travers ndeyi daara wala bàyyi daara muy parrainage bi maanaam dañoo xayma ne xale bi li koy dundal ci bis bi mooy 500 francs CFA su dee Europe 1 euro la su dee États-Unis un dollar loolu kon mooy parrainage bi da ngay jaayante ne man kat danaa warlu euh, am maam jaara wala ay maam jaara kenn ku nekk 500 francs par jour weer wi di ñetti junni su ko defee loolu ñu bind la ci programme parrainage bi su ko defee ngay defal yàlla di liggéeyal soxna jaara ci turandoom yooyu nga xam ne. Euh, incha allah aw jiwu lañ woo xam ne li ñuy def ci ñoom suñ ñibbee seen i kër danañ fa tasaare loolu ci seen njaboot danañ ko tasaare ci ndax exemple bi ma ci joxe rek mooy am na junneeg juróomi téeméer yoo xam ne ci réew mi ñu ngi jàng alxuraan ci loxo yi ñoo xam ne fii la ñu mokkale alxuraan ba génn ba génn kon nag loolu day wane ne mbir maa ngi tàmbali law ci ci ci réew mi njàngaleem alxuraan moo xam ne jigéen yi ñu ngi koy def mi ngi mi ngi tàmbali law jikko yu rafet yu soxna jaara yi ñu def ci ñoom mi ngi tàmbali law te loolu njariñul société sénégalaise bi yëpp la ngay murit ngay tiijaan ngay xaadar euh, même ku dul jullit sax mën naa ne am na ci njariñ ndax li ñuy defar euh, qualité la boo xam ne fu ñu dem tasaare fa loolu su yàggee société sénégalaise bi yëpp nekk ci njub nekk ci baax te jikko yi nga xam ne dañ koo dañ ko dañ koy ñaawlu muy jikko yu yàqu yi loolu dana tàmbali wàññeeku ndànk-ndànk te loolu ñëpp ci am njëriñ programme bi suma ci dikkaatee euh, dañ ko dañ ko tëgg ci dañ ko tëgg ci daanaka ñetti anam anam bu njëkk bi mooy exposition exposition daanaka fii ñu taxaw da ngeen gis ne euh, am na fi ay tableau d'art yu am solo yoo xam ne lépp ci diine la jëm ak yarub jigéen ak jàng jàngal jigéen loolu ci euh, am na exposition œuvre d'art yoo xam ne ay artistes yu mag a mag a mag ci réew mi nga xam ne dañuy exposé ba ci bitim réew ñoom ñooy defar tableau yi offrir ko fondation Mame Diarra Bousso ne euh, mooy doon seen contribution ci liggéey bi su ko defee ku ñëw da nga fekk exposition boobu fii ci fii ci forum bi euh, exposition bi itam dana amaale volet wanewaale daara ji ci boppam dana am ay images yoo xam ne ku fi ñëw da nga gis promotion yi fi jaar concours yi ñu gagné ak yeneen ak yeneen loolu mooy premier volet forum bi Euh, forum ëttu soxna jaara bi ci topp mooy wàllu projection yi muy am na ay film yu ñu waajal yoo xam ne ku ñëw da nga gis film yu am solo yu ñu fi yu ñu fi dawal yoo xam ne benn bi ndeyi daara la tudd ndeyi daara poroxaan moom ci la ñuy gën a leerale parrainage bi ci boppam am na beneen film boo xam ne mi ngi tudd ci français la maîtrise di coran au féminin bëgg a wane euh, jigéen ju mokkal alxuraan nan la nan lay demee te exemple daara maam jaare ji nekk ci firnde bu leer

Euh, maanaam njariñ ak lor yi mu am leeral ko nit ñi ndax xam nañ ne réseaux sociaux mënees na cee def lu baax waaye mënees na cee def safaan lool ndax élection yu ñu génne euh, gis nañ ne bari na lu réseaux sociaux yi yàq ci ay sos ay euh, wax ci diggante ay tariixa lu leen féewale wax ci diggante ay xeet lu leen féewale te Sénégal réewum jàmm la moo xam ne wax dëgg yàlla ñëpp ay bokk lañ kon réseaux sociaux yi dañ cee war a defar waaye waruñ cee yàq loolu lépp nag danañ ko leeral ndax lépp jikko ak defar defar jikko yu baax te loolu day dellu rek soxna jaaram mi nga xam ne ay jikkoom la ñuy xeeñtu si fii ci màggal Porokhane kon réseaux sociaux yi wax ci lu jaadu la am na itam incha allah beneen panel boo xam ne dana jëm ci euh, suba ci alxemes ji ci moom it ci 21h jëm ci projet bu mag boobu Cheikh mun Mountakha taxawal Touba muy université bi moom it euh, waa Rawdu Rayaahiin sëñ Mbacke Abdourahmane dana ñëw professeur Mor Faye bu UGB euh, soxna Aram Mbeng bu al ak waa commission financement wu euh, ak suivi ak financement projet bi ñoom ñëpp danañ teew ngir leeral nit ñi projet bi ci boppam waaye gën leen leeralal tam lan moo ci wàllu jigéen ñi ndax comme màggalu Poroxaan ak Soxna Jaara la ñuy wax jigéen ñi lu ñuy def rek jigéen dañ leen ciy jiital moo tax projet boobu danañ ci gën a leeral tam lan moo ci wàllu jigéen ñi ci jaayante bi waaye ci dugg fa jànge fa wuti fa xam-xam kon loolu yëpp problématique gu njàngum jigéen danañ ko fa gën a gën a gën posé ci panel boobu waaye am na yeneen panel ci euh, suba ci euh, alxames yi ci bëccëg am na panel buy am ci suba gi boo xam ne euh, maam jaare yi ex-pensionnaires yi jànge woon fii ba dem ñoo koy seq am na boo xam ne bu am ci ginnaaw tàkkusaan moom ay parents d'élèves yi ñoo koy seq loolu lépp rek